la xam na ni sa yaram dafa xaw a jagati mm-hmm. Mm-hmm. xam naa ne ñu xam nañ seen bopp ñu ngi ñuy seetaan dañuy mm-hmm. xamante ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpitaux yi wax dëgg yàlla vraiment ñu ngi leen di wu ñoom itam bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla yal yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a delluwaat ci seen ay activité mbay feebar dafa metti ku ci nekk ak jàngoro bi ne dëgg la am dox dëgg la jàngoro bi yor a bu baax a a mm-hmm, baax mm-hmm. dañuy takk masque yi di laver les mains waaw ay gel def ko suñu poche waaw parce que instant bi liñ naan euh, lan lañ koy waxee sax instant bi affaire yi compliqué na compliqué na lool vraiment ndax hôpitaux yi boo ci demee di faju ji amoo amatul place sa day metti sax nga dem ñu ne la ay toog voilà mi ngi noonu vraiment. donc dafa c'est c'est dur daal donc ñun rek ñoo ci mën a jóg ñoo mën a xool li nga xam ne moom mooy moom mooy saafara ñu def ko mooy masque yi nañ koy takk bu baax a baax fépp fu ñu mënti dugg ba gel yi aussi tamit nañuy faral di ko yore di loxo yi ak saabu comme niñ koy faral di defee ndax jamono ji ñu toll nii euh, troisième vague bi metti na ba fa metti yam hmm. ndax cas yi boo xoolee par jour li gën benn jour ñu am mille trois cent et quelque cas hmm. loolu dafa dafa duma leen ko nëbb waaw ah. maa ngi gis nga duma leen ko nëbb de dañ yàlla te lu ne dañ nga ko man su may wax damay wax lu ma xam may wax ak lu ma métti lii ku ko ñam rek yaa ko mën expliquer ñam naa de wax dëgg yàlla na gën a moytu bu baax a baax a baax c'est très important des fois gars yi wax ñu ne ax ah, ñi dañoo a sangul rek yaakaar naa ni sa taar la la bëggal te bu baax baax bu ñuy dem ci yenn supermarché yi bu ñuy dem ci yenn affaires mm-hmm. bi ah, ñun xale yi nga xam ne ñun itam dañuy dox rek wax dëgg yàlla mm-hmm. suñu yaay yi dañuy toog suñu yaay yi demuñu dikkuñu suñu papa yi demuñu dikkuñu dañuy liggéey wàcc ñëw téye seen bopp waaye ñun feebar bu ne ñu leen ko wax dëgg yàlla nga la ñun xale yi dañu gën a lu may baax a baax a baax mm-hmm. te moytu daal mm-hmm. yenn yi tooñ la tooñ la ndax ka toog ca kër ga demul dikkul di protéger boppam mm-hmm. yow dëkkewoo lu dul nekk ci mbedd mi di taxawaalu nangu woo takk masque nangu woo raxas ay loxo am na da gis ñoo xam ne buñ dañuy doxi ba ñëw ñu taajal leen boolu lekk duñu xalaat duñu jaar ci raxas dañu jël seen loxo rek dugal ko noonu ci boolu lekk bi commencé lekk te jamono ji fi ñu toll nii maanaam euh, c'est dur li ñu naan c'est dur mooy c'est dur instant bi feebar bi bari na ci dëkk bi euh, képp koo xamante ni si yaa ngi génn ndax fi mu toll nii dafa ñoo xam ne ñoo dëgër bopp du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ne nañ feebar bi amul li mm-hmm. yi dañuy sóob ñu jógee naan feebar feebar amul mais duñu wax euh, ñi nga xam ne jot na leen a dal ba nga xam ne ñoom euh, ñam nañ li nga xam ne moo di feebar bi ñoom xam nañ bu baax a baax a baax képp koo mm. xam ne toog nga sa kër di nooyi parfum mm. xeeñu la wala ngay lekk safut bay sama tabaski bi lu ne la. yow waaw gëj naa tabaski nii. <laughs> musuma tabaski nii bay. bay da nga naan xeetu xeetu xeetu ndawal di la xeeñ. bay ngay kontaan. yow dèjà da ngay suur dèjà. waaw mais mbay nga ah, def nii mënoo xeeñtu mbay nga lekk xamoo lii dafa saf suukar. waaw moo dafa saf kaani xamoo lan la saf. waaw ma ne man yàqu na. tabaski ni mu mel ñëpp di lakk seen kër yi. sama àdduna yàqu na. saxaar yi di jolli ci dëkk bi yow nga ne dara xeeñu. moom a joxam di lakk saxaar yàpp yi xeeñ foo na gis yàpp yow nga ne man dara xeeñ ba ci ngay gën a mën a dem dugg ci biir waaw ba pare ah, ñuuxu nit képp ku xam ne daal loolu mi ngi ci ah, yow protéger sa bopp quarantaine sa bopp sa biir kër mais da am ñoo xam ne ñoo dëgër fit xam nañu loolu ñu ci ñoom bi ñu takk masque ba fu mbooloo toog ñu dugg fa ndax lu leen dal bëgg nañ mu dal ku ne bàyyi leen loolu ah, àddina mu solo am naa kii sax waaye maa leen di jéggalu <laughs> ah bon <laughs> du woon sama coobare <laughs> juum rek <laughs> yàlla yàlla xale rek kay jiw ah, ayca eh, dañu ubbiwaat eh, li nga xam ne moo di antenne bi gars yi mën ngeen dugg bu baax a baax ñu daal di koy waxtaanee mhm. eh, sànq ba ñuy tàmbali wax nañ ko dañu indaale li nga xam ne moo di suñu ndëwanal yu am solo mën ngeen woote aussi ci 88 628 28 28 ngeen daal di bés 2 ngeen woote itam Euh, ci 88 628 89 90 ngeen bés 2. Mhm. ñi nekk ci diaspora bi mën nañ dugg ci plus 221 à 33 841 20 69. bu kenn nekkee ci ligne bi rek ñu jël ko. waaw ñun ñu daal koy waxtaanee. waaw ah, ñu daal waxtaanee tabaski bi. Mhm. Mhm, seen tabaski bi.